salaamaaleykum wa rahmatullah ñu seexu naa ngeen def mbaa yéen ci jàmm maa ngi lay yóbbante ci waa diwaan bi ci lu jëm ci Tuubaa ci kanam ndax ñu ngi waaj noonu ab liggéey ci wàllum inondation yi nga xam ne mooy am Tuubaa te liggéey yooyu ñoom ñu yàgg koo def du du gulet te jamono bi Tuubaa ci kanam sosoo ba léegi jaayante ju ne jaar na fi ku nee ngi nag di jël ay jëfam di ko jëfalee foofu suñ Tuubaa te li waral sosug Tuubaa ci kanam bokk na ci mm, murid yi luñ daan gis ci biir Tuubaa mu leen di naqari ci loo xam ne bëgg nañ mu taaru jàpp ne méngoowut ak dëkk bi ci melokaan te jamono bañ ko xalaatee ba ñu làmbee seen pos amuñu kàttanu mën ca dara ñoom ñu sos eh, mbooloo moo xam ne kenn ku ci ne loo am boo ko ci defee keneen def ko ci la nga bëggoon yow di nga gis ne saafarawu na ci ci ci ci ci ci xol bu sedd ci li nga xam ne moom nga bëggoon a saafaraal sëriñ bi ñoom nag ba nu tàmbalee def seeni jéego yàgg na te boobaak léegi eh, ku ne ngi jëf ku ne ngi góor góorgóorlu donte ba ci yéen sax yéen a ngi jël seeni seeni dërëm di fa yóbbu waaye sagam nag eh, ñi ngi defaat loo xam ne mi ngi jëm nii ci donation yi sëñ Muntaxa joxewaat ci ndigal ñoom ñu jug ci def ay jéego bari na murid yoo xam ne nii gënu gënuñu leen a bëgg lu baax te ñoo ngi koy jëf seen seen seen seen kéem moo tax ma bëggoon yéen waa diwaan bi ngeen am benn taxaw boo leen ci taxawin boo am solo boo xam ne ci seen tur lay demee ci liggéey boobu ngeen tàmbalee waat ko jaayantee waat ko Serigne Touba ci seen diwaan bi ni ngeen ko tuddee muy jaam yàlla liggéeyal borom jaam yàlla liggéeyal borom Touba ngeen gën cee jaayanteeg moom te fexe mu sax dàkk te boo leen di jëf ngeen fas ci seen jëf yi. bokk ci ñi nga xam ne nii ëllëg fu àdduna mënti toll bu ñu waree jëfal lenn suñ tubaa dañ ciy xalaat seen seen seen jëmm yi ngir boole leen ci biir liggéey boobu loolu nag mooy li ngeen di ñaan saabu ne ñun ñu koy ñaan mooy yàlla na nu sëriñ bi liggéey loo boo bëggee sëriñ bi liggéey loo la nag da koy sabab di jël saw ñaq ndànk-ndànk di def di def di def ba bi xam ne lii am nga ci pas-pas boo ko defee mu mu mu mu mu mu mu dimbali la ci waaw kon loolu ci Touba ci kanam mii di laaj ay ñaar téeméer ki jëm kaw ñu tàmbalee ci noonu ba dem ba nga xam ne sëñ bi dinañu may kàttanu buñ laajoon milliard sax ñu man koo joxe loolu nag yéen a ngi mën a sàkkoo kàttan gi ci jamono jii nga xam ne moom moom. ma bëgg nag waa diwaan bi yëpp donte da ci am téeméeri nit yoo xam ne dinañ fasu kenn ku ci nekk génnee trente mille ngeen boole ko mu mat limu camion yi nga xam ne waa Touba ci kanam soxla woon nañ ko ci ay suuf muy téeméeri camion. ngeen jël ko jaayante ko jox ko Touba ci kanam donte sax am na ñoo xam ne ñu ngi jël seen i camion di joxe fa ñuy tibbee suuf sa sax boo may tuut gratuite la ñuy def suuf sa waaye bu leen xool ku jëf ba noppi ndax boo leen ko joxee te defuñu ko foofu yi dinañ ko jël def ko feneen foo xam ne sëñ sëñ Touba képp lañ ko fay lañ ko lañ ko fay defal waaw loolu boo leen ko dajalee donte mat na ñaari million jàpp ñetti million sax na ngeen ko def te na ngeen ko jaayante ci diirub fii ba altine jàpp talaata na ngeen ci def seen seen kem kem kem kem kem kem kàttan diwaan bi nag ñi fi nekk ëpp nañ ñaar téeméeri nit di dem kon kenn ku ci nekk na fexe ñaq def ko ci def ci sa sa sa sa sa sa sa kem kàttan waxuma nag li lañ suñ tubaa di defal waaye kenn koo xam ne ni jaayante ne ci lii nga xam ne ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy wax ci liggéey tubaa tubaa tubaa ci kanam bi man mii ci sama jëm bopp maa njëkk a sacrifier sama lu ma am ngir suñ tubaa defal la tawfeex mu door wéy nag ci sëñ Karim mi nu àndal ak sëñ Fallou mi nu àndal ak ak ak ba ba sëñ ba sëñ Tuubaa mi mi mi nga xam ne mooy sunu lépp ak Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moom la ñu roy kenn ku ci nekk dina am tawfeex bu jógee ci yow wàcc wàcc sa wàcc wàcc sa kaw. jaamu yàlla nag ba borom tubaa ngeen tënkee seen seen seen seen mbir mi jaamu yàlla ku ne mën naa nekk sa kër def ko waaye liggéeyal sëñ tubaa da ngay ñaq di di di jël sa poos di jël di jëf. bu ñu wootee nga dem lu ñu mënti def nga nga nga nga mën caa nekk kon nangeen ngeen fexe ba ci diir bu gàtt ci diirub ñaari fan jàpp ñetti fan ba ñeenti fan kenn ku ci nekk lu mu am donte sa téléphone la sax demal nga jaay ko ñu dajale ko muy ab lim ñu yóbbu ko ci Touba ci kanam ci turu ci ci ci ci turu diwaan di diwaan bi yéen ñëpp. fi ngeen di jaaree nag suñ Touba defal defal defal ñu tawféex ba lépp loo xam ne lu ñuy sumbalati la dinañ ko mën màggalu Mbàkke Baari bi mi ngi mi ngi ñëw defe naa ne la wal wala nangam. lépp loo xam ne ni yéen a ngi ko doon dajale ngir mu war a jëm ci màggalu Mbàkke Baari yeeg yooyu man fi mu ne nii yittewoo yittewootuñ ko buñ fa yeggee suñ suñ fal dinañ saafaraal lépp jël leen mboolem xéewal yi nga xam ne yéen ko doon waaj moo xam màggalu Mbàkke Baari ak mboolem loo leen doon waaj ngeen dajale ko muy ab lim ngeen jël ko ñu fexe ko yóbbu ci ci ci ci Tuubaa ci Tuubaa boo leen jaayantee xéewal googu nag ngir ngir yóbbu ko ci ngir ngir ngir indi ko kenn ku ci nekk eh, ca diiwaan ba nga nekk moo xam jiwaala nga nekk bu fekkee ne da nekk ci diiwaanu bu bu Thiès ta nga féete Ndakaaru sax xoolal jëwriñ ji la gën a jege nga woo ko jël sa xéwal yónnee ko ca nga xam ne moom la moom la gën a gën a jàppandale ci yow ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy yónnee xewal yi ci jëwriñ yi kenn ku ci nekk boo jotee xewal bindal ma turu ka la yónnee xéwal ji laajaale ko sax turu waajuram mu jigéen nga nga bind ko yónne yónne yónne yónne yónne yónnee ma ko bu ma yem ci xam moom turam ji moom moom mi nga xam ne moo moo moo moo jëf moom moom moom moom képp waaw wax dañoo bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa dañoo bëgg nangam ak nangam ci waxum waxu waxum kese moom na na jeex tàkk ci suñu suñu suñu suñu suñu diggante sëñ Tuubaa ñu fi tax nekk li ñu yor moo ko moom moom suñuy jëmm moom suñuy ndey moom suñuy baay moom lu nu jur loo xam ne nag bu ñu rendi la suñuy doom ñu rendi ko kon koom-koom yi ngeen denc ci seen poos yi te naan sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa te lenn nanguwoo leen ko génne jëmale ko sëñ Tuubaa na na na dakk waaw na diiwaan bi di ànd ak ngeen di miiraas seen bopp foo leen toll ngir sëñ Tuubaa kon sëñ Cheikh naa jottalil ma leen ko loolu jëwrin yëpp yëpp yëpp yëpp jot ci ñu daal di ciy taxaw léegi fi ak talaata dinaa woote waat ne mbooleem addiyee ju joo xam ne nii ngi ko doon dajale nañ ma ko yónnee te bu talaata jooju xasee ba weesu du ma ma ma du ma jëlaat jeneen joo xam ne donte mille francs la nit am sax na ko jël du def def ko ci bu kenn daa am lu ma doon xaar te jotuma ceeg ak nangam ak nangam ñu sax ñatt yoo xam ne nit jël na ko def def def def def ko ci bu talaata ji weesoo ba ma ne nañ dajale addiyee ñu mënti toll bu ñu ko xasee ba takk addiyee kenn dootu dootu dootu ci dem te lépp lu lu lu lu ñuy fàgguteef wala nangam ci ci ci ci loolu noonu ca ña nga xam ne ñoom ñoom lay ñoo ñoo ko jaayante rek ñu ci ci la ci lay lay yem. amul kenn koo xam ne ñaar fukk na la ko ñaar fukk sax xeebuñu ko ci jël leen ko ngeen dajale ko def ko muy ab lim ñu xam takk yi nu toll ngeen jël ko yóbbu ko ci ci Touba ci kanam mënoo leen fee defal lenn suñ Touba lu dul jub. bu weesoo njub ngeen defar dëkkam dëkk dëkkam bi njub gi nag maa ngi leen ci soññi saa su ne ngir ngeen di góorgóorlu ci ak njub ak mbaax ngir ngir sagalee ko seen bopp ëllëg seen diggante ak Sëñ Tuubaa lii fi Sëñ Tuubaa bàyyi nag muy dëkkam bii nuñ fexe mu mu mu mu mu jege moo gën démb maa ngi déglu sëñ Abib moom sëñ Fàllu bi muy wax nee na Bill Gates sax bu mu ëppoon kàttan xam nga ne du ma laaj kenn kon tu Tuubaa ci boppam wurus laay def sax suuf si te loolu ñëpp dayo boobu la am ñun ñëpp ku sañoon Touba dalet yi nga xam ne moom ngay dox sax en or lay lay lay lay lay doon jëri yokkul dara sëñ Touba nag te ñàkk ko am wàññiwul dara sëñ Touba waaw kenn ku ci nekk nag na na na na na na génn ci sëriñ bi bañ cee jëf dara xool ba xam am na am na lu mu ci am na lu mu ci wàññi sëñ tubaa bu ko neexoon dëkk bi jumaam ji bi mu koy def ku ne laaj na ko malayka yi sax laaj nañ ko ngir ngir ngir jëf ko mu bañ ko ngir yéene yéene yéene ñu ko waaye ku ne bëggoon nag koo liggéey ñooñu bu leen joxoon tuubu Tuubaa gii wala suñ borom ci boppam sax laa la wax bu bu bu bu bu sëñ Tuubaa dégagé woon responsabilité ñëpp ne moom suñ borom la bëgg mu defaral ko dëkk bi en or léegi dëkk bi nekk nekk nekk nekk nekk en or sëñ Tuubaa xañ loolu ñëpp nag muy muy yàlla suñ borom malayka yi ñëpp ñëpp ñëpp kenn ku ci nekk lenn loo xam ne yaa ngi koy bëgg a jëfal mooy la dimbalee ma ko samay samay samay taalibe yi jëf ko waaw loolu nag boo leen ko ñàkkee jëf wàññiwul sëriñ bi dara kon nanu fexe sunu ngirub dund ñu sax ci di ci liggéey sëñ bi yéen nag da a bëgg doon ñu kawe seen turu diwaan bi diwaan Paquetage yegg fu sori na ngeen tàmbali ci li nga xam ne moo fi tàmbali di liggéey Sëñ Tuubaa ngeen sof ci kuréel yooyu di jël seen i ñàq di ko fa def di ci góorgóorlu ba baa ñu leen di yeggali fenn fii seen tur yegg fu sori ci liggéey Sëñ Tuubaa ba kuy woote ci liggéey Sëñ Tuubaa mën leen cee boole